am na def yow d'accord. donc ci biir loolu nous ñëw ñu ñëw ci journée nationale bi nga journée sans presse. Oui, mm-hmm. première fois bokk ci recul démocratique du Sénégal ginnaaw loolu mardi le treize lañ ko def mercredi le 14, di président de la République prêtez attention à loolu alors que ça fait plus de un mois nous avons pressé li nga xamante ne la presse tëj ay compte bancaire def ay rupture de la convention publicitaire pour bloquer ñi nga xamante fait war nañu fay salaire yi. Mm-hmm. nous avons ngeen jàngatee li nga avons ni journée de la presse bi ci recul démocratique mais c'est euh, war woon am Sénégal pour man euh, événement mais lu président. tok pendant un mois presque bi ñu ngi joy compte yu ñuy tëj affaire redressement fiscal tay mu ñëw nee na nañu réformer waat mu doon li nga xamante mo gën approprié. pourquoi balaa ñu doon tëj mu won def ay réformes yu. approprié woo ñëpp waxtaan médecin après la mort toujours. mooy dañuy def ba paré doo koy xalaat. xam nga tay euh, c'est bu ko Macky Sall defoon. Hmm. tay mën nañ tàccu. mais ñi sen sen arrivé au pouvoir presque bi da jouer ben rôle bu capital presque ça ñoom demoon nañ sax ba ñëpp naan presse Sénégal est-ce que du Ousmane Sonko mooy dirigeant de presse dirigeant de presse oui. tey jii bu ñu wëlbatikoo presse boobu ñoom ñi dal ci kaw presse man dama ci man je me pose la question presse bi nous man qu'on a eu? la presse nous a toujours soutenu et c'est un presse responsable très responsable Nous leen manipuler et puis patron dañu comprendre les organes de presse je pense que dañu am problème avec presse bi man je pense li ñu def ils, ont des, problèmes, avec, des personnes. Avec des personnes. voilà. je pense que les femmes ont des problèmes avec des personnes. Ils ont des problèmes avec Je ne peux pas comprendre. Je euh, ne peux pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre. régime. Vous avez fait pendant 6 mois. Vous commencé à être des comptes. que si entreprise mais la réduction des comptes par secteur bu nek dang koy def. mais yow réduction des comptes mënoo ko terminer ci 1 2 ou 3 mois. il faut nga dem 6 mois moo ñu lay may bo nekkee ministre 6 mois pour nga maîtriser sa cabinet en ce moment tay sax bu fekkee da ngay def ay redressement sax do ko def abusif di nga woo nit ki. teel ko defal ay sommation poser que ay question moy li ñu li ñu bëgg def ni moy expliquer la moy réforme bi. té et puis bu ñu fàtte ne presse Sénégal bokku na ci presse yo xamné depuis 1886 ba légui yu ñu naw la si àdduna moo affaire bi bi mu amee presse internationale bi ñëpp ko lolu njëkk premièrement bu fekkee da nga da nga bëgg a bousculer sa presse moy yow ya ngi jëm ci menacer la démocratie de de ce pays. parce que nga yow kenn du fi waxe parce que andu ñok yow. mais presse musul and ak kenn. mais nak li bax na ñu xam ñan ñoy presse pouvoir ak ñan ñoy ñan ñoy presse légaliens. maintenant xam nga xam nga luma wax mo si nekk mooy président Diomaye Bassirou Faye dafa laaj ñu dimbali ko.

presse bi tok na def presse man pas ko ko ko ndax lañ mais aide à la presse wax dañ ko bëgg je pense que mais entreprise mais convention légal. convention mais ñaar ñaar dafa légal presse privée xana buñ ko hmm. public bi ni amna publicité waru ko jël yéen a ko war a moom. am na convention yoo xam ne ci bi. am na RCS RCS. li mu ci am booyal 33 milliards am na convention yoo xam ne am na convention yoo xam ne. presse privée bi moo ko mën te état bi li may wax ma si nekk pour créer des champions. état bi moo war a financer secteur presse bi. j'ai écouté un petit peu ministre bi di wax naan audio secteur audiovisuel ça génère beaucoup d'argent en termes de mais moom. États-Unis la nekk moom ba léegi mi ngi États-Unis <laughs> comprendre ni les deux pays ne se ressemblent pas le système une digitalisation bi ñuy wax ñoom dafa amagul Sénégal mhm. est-ce que tout secteur yëpp digitalisé digitaliser dafa comprendre non c'est juste c'est juste ma leeral la foofu xam nga xam nga kaay ma la pour comprendre lul mille vues mille vues sur YouTube à Dakar ici on te paye zéro virgule cinquante huit euros euro mhm. le sax trois cent vingt cinq pour mille vues mhm. mille vues aux États-Unis on te paye maximum sept à huit dollars en Europe, on te paie 5 à 6 euros sur 1000 vies. Fille, il y a 325 pour 1000 vies. Pour 1000 vies. Imaginez le bon. Vous comprendre. Ouais, les 325, c'est 1000 vies. C'est 1000 vues. Les gens qui ont conférence, le <laughs> problème est moi. Munu len gis nga munu len jitu gaay il faut que dafa am lu wara am dafa am presse bi ñuko ngank li wara am moy des concertations ñom biñ togon dañu wara concerter wu gis nga amul xajji amul sen da nga wara jël presse bi yépp ñi nek ci public bi comme privé bi nous avons ñu diagnostic nous avons un président il faut que nous laa faire un président Il la ngeen may apporter parce que presse fait partie de la bonne gouvernance parce que la presse est le quatrième pouvoir président le président de la république pour la première fois dans l'histoire il est jeune il mu voyager organes de presse encore mm-hmm. comme ce qui se passe dans les autres pays normalement les patrons de presse nous avons même beaucoup de cellules de communication parce que dina ko meuna permettre muy xam la xew. gis nga à l'époque de Abdou Diouf ak yoy moy renseignement collé yoy nañ faté ni ñom xam man toujours dama naan l'arrivée au pouvoir de kii. ar lu leen gën a defar sen seen politique moy les réseaux sociaux. Ah, ñoo leen apporté loolu la ñu foog ni tey ñoom mën nañu gouverner ak loolu. ñoom ñoom dañuy mais mais bu fekkee ne xana kon liñ ñu defoon baaxul. Hmm. liñ ñu doon li ñu doon def ci biir mo baaxul. parce que ku dem bay menacer pression dama yakkar ni yow la nga def mo baaxul ba accès au pouvoir nga ragal lool mais mais lima gis moy li wax fim mu fi mu daanelee def ay concertation hmm. mais problème bi ñëk am moy dafa recevoir les patrons de presse. mais recevoir na jeune reporter yi. non waaw lool lool moy diviser pour mieux yow na nga mëna féké ño xamné jiitewul dara. non non jël sa dom recevoir dom ne ko sa baay sa baay baaxul. <laughs> waaw loolu. loolu loolu mooy yow da nga wara a jël patron yi recevoir leen ba paré bu fekkene ne dañoo bari. Mhm. comme néna mën na quatre quarante et quelques ak réseau yi dañoo bari. nga séntu ko par groupe. bu ko défé dina mel ni nga am concertation bu doy am information bu doy après nga doo koy jël. ay prise am salle de banque sax. mais mais mais voilà. non même sax salle de banque xam nga dañ koy def ben méthode bo xamné comme dafa am problème ñom bi ñëwé problème bi njëkk am boko ko ñom ak presse bi la

en ce moment dina mën permettre outils yi état bi am ak ministre de la communication ñu mën mais lu jëm ci en terme de fiscalité mais buñ ci nekk cuune Sénégal gis nga régime fiscal, mënu fi dox parce que ben maîtriser wuñ ko nee à 100%, pour bu ñuy wax né ni ñi défé ni déclaration yi ni ñu koy défé amna na maîtrise yoo si am dañ nek ci fenn fo xamné dañ ko wara doxé moy mënu mënoo tëb rek tej ay compte nit yow tooga ko bul def man la ma nekkoon impôt domaine maa ngi doon gis lii maa ngi doon gis laa normalement gars yi fayuñu affaire yooyu mais mais bu fekkee da ngay tëjee mais ma defee ne boo toogee au pouvoir entreprise yi daanu sax da nga leen war a redresser njub. waaw mais tey dañuy subventionné wàllu agriculture. waaw mais dañuy subventionné wàllu presse. mais ñu ngi subventionné ga Magal Touba. mais mooy yoon à huit mais mooy yoon mais loolu la ñu am droit. subventionné presse mais tey jii kii kii li nga ma wax la benn affaire. Hmm. tey def reportage ak yooyu fu muy jëlee xaalis bi. convention yu mu am supposons tay di bu couper convention bi légui mom courant bi muy tal ak en terme essence bi muy lakk gasoil bi fu mu koy jëlee. seen conseil des ministres chaque jour ñëne ni communiqué pour ñu génne. exact te communiquer ñun ñokay ñoo chaque jour ministre bi tey ministre de la communication woote na. état bi dafa état bi en dehors de l'aide de la presse. état bi mo wara def si ay kuréelam. presse bi di gagner ay marché fort. Mm-hmm. parce que bo démé dans tous les pays du monde ça existe comme ça. dañuy liggéey mo mm-hmm. wara que presse presse mais si nangu ay euh, buñu bëggé dab France 24 ah. mais ñoo créer des champions je pense que ni Diomaye lam la patron de presse fuñu taxaw ci poser ci question yene président ñu c'est les Sénégalais té xola Afrique lo xamni ñepp interview yi France 24 moy ñeu def ko wala New York Times wala Afrique mais pourquoi pas créer créer cette presse nga xam ne am expertise am nañ man je ne suis pas d'accord que li ñu def presse bi xam nga lu ñu war a question de fisc la dañu war a toog ñu waxtaanee ko. xool yenn condition ak lañ koy jaay pour alléger bu fekkee ne kenn du baal fisc kenn du la ko baal. non impôt moom kenn mosu ko baal nit bu ñu la waxee baal na ko dinañ la ko dagg feneen. maintenant ñu toog ñu xool liñ man liñ mëna def ñu leen kat mëna def ay report gaay xol xool dañuy fayee ñoŋal leen affaire bi bu ko défé emploi yi dootul menacé tey ji bo menacer presse bi amna na emploi yu bari ku tay ji day tok né ah man mënu maa fay salaire ah day obligé joxé ay lettre de licenciement té bu ko défé léegi nga yokkat nak la nga yok sa bâtiment ba hmm. té presse bi ñaata jeune reporter ñoo nekk ci viti bu leen dàqee fu ñu jëm c'est ça fu ñuy jëlé dépenses Ablaye nak nga xalaat ci journée sans presse bi am barki dembu ak réforme bi nga xamanteni président woote nako jagal ko ministre de la communication tay mu ñew nee na dañuy recenser les presses légales té limuy wax ni ça a été fait du côté de Moussa Bocar Thiam dernier délai c'était le 13 juillet 2022 J'étais à Paris man Paris la néon. Quand Kanouté m'a envoyé ma yónnee joxe document yépp ñu recenser ko mi ngi ci biir ministère tay tey na dañuy recenser waat teg nañu plateforme pour recenser les maisons de presse xam nga ñom lan moy sen problème fondamental tans buñ boo ñu xey man tans ne bind leen leen message ne leen léegi lépp lu may wax sama plateau seen faveur lay doon. waaw yéen ñëpp ngeen def ko bu subaa dootoo leen fi dégg problème mu presse <laughs> ñoom benn problème lañ am. mooy désinformé nañ sénégalais yi ba egsi pouvoir yéen ngeen dellu toog ci presse di wax sénégalais yi. waaw tey jii euh, bu fekkee convention la presse di dundee. Mhm. nga xam ne tey day am convention ci état am convention ci ay société tey parc industriel bi nekk Diamniadio soo ko mesoon mu continuer liggéey 15 usines ya fa nekk bu ñu usine bu ci nekk am convention ak site internet ak télévision yi xaalis dugg ci réew mi. su fekkee da dem jël 45 industrie bi. Mhm. industrie boobu mu ngi liggéey ci transformation laitière. laitière ak produits halieutiques yi nga xam ñu ngi koy. béy ci jëri bo demee boo demee si vallée bi ñu ngi fay def industrie bo xam ne day def transformation euh riz. légui différence industrie yoy nga xam day yi day transformer mbay yi di transformer industrie ak ak industrie façade yi fa nekk loolu boo ko jëlee. Mhm. ñooñu bu convention ak groupe de presse yi impôt booy laaj. Sénégal sénégalais dañ la ko mëna fay. mais réew mi bu fekkee secteur formel.

budget bi nekk deux mille quatre cent milliards. Macky nekk fi douze ans yóbbu ko sept mille trois milliards. triplé ko triplé bi ci am ba budget bi avancé Abdoulaye Wade dafa indi Amadou Ba comme euh, euh, comme directeur euh, général des impôts waaw. Amadou Ba est-ce que mas naa sonal presse. deux mille quatre cent milliards. bi mu ñëwaatee est-ce ko mu yóbbu ko budget bi sept mille trois milliards. est-ce am na ci. ñoom nag ñu teg leen jox leen pays neuf pays neuf bi mooy da nga daan jëndi pétrole ak bitim réew. bitim réew di indi Sénégal mu ngi tollon ci 600 milliards. sa pétrole paréna doto ko ci dugalaat. 600 milliards muy 7603 milliards. yow sa pétrole yang ci xaar 3000 milliards. waaw 3 milliards ba muy 10 milliards. tans ko am 10 603 milliards looy sonalee sa presse. Ah, moo jaaxal ñëpp. léegi li tambali moy damay accélérer parc industriel yi sama presse am ay convention yu bëri ma dog na len nak légui dox la ngeen comme dox la ngeen nak recruter leen man ma jël publicité ba pare ñaax société yu mag yi nek ci biir Sénégal ñu am convention yu am doole ma arbitrer ko. waaw ak ak ak groupe de presse ba ba ñi ba ñuy industrie installé sama dëkk jox seen publicité samay doomu dëkk équipe bu football yi. ñu ñu si doxal. loolooy doxal mais mëno tok dëkk bo xamné doxna bañ na Macky Sall ni tabax na Sénégal gep ba pare gisuñu mu sonal benn industrie gisuñu mu sonal benn presse yow nga nekk daggkatu juuti rek comme ni ko Bougane Gueye waxee ñëw rek toog ci STL bi ne non damay xool temps neexuma woon bi ñuy toog di di xool convention bu LONASE bi mais temps lañ ci gis mais Babacar Keulou bokk ci. 15 millions. 15 millions moom moo ko moo ko wax 15 millions ne. nee na doon tooñ sax ay ba pare ba pare eh, ñaaxaliñ la bokk ci. ñaaxaliñ la bokk ci. ci la bokk waaw léegi Walfadjri bi bokk ci. ci la bokk waaw léegi lan moo lan mooy. déranger RTS ci la bokk RTS ci la bokk. Ah. segg gi mooy presse bi daal nañ ko segg képp koo xam ne gis nañ sa plateau àndoog ñu ñëw ne ñu wut luñ teg ci am ko ma cité nañ ma sept personnes. bés bo len baye invité ci sa plateau. ma xol état bi nu muy renouveler sa combat. waaw xam nga taw ma len kon du ngeen ko renouveler. waaw nañ dal sept personnes. né nañ na len éliminer di invité. ta non lañuy def yenn genre xol xoola bul invité diw bul invité. xoola ñoo xam ne sept personnes yooyu pression bi am ci seen kaw lool la moy manam xam nañ ñoo xam ne bëggatu ñu len di invité ci plateau bi. manam des hommes fermés nañ Sénégalais wax len lu dëgg ba falu. légui nak presse bi taxawé taxawayu dëgg ñi changé wuñ ben yoon. waaw ñii changé wuñ yaa liggéey sa alal ñom ju joggé fa la ko yàqal askan bi laay liggéeyal waaw bëgg la ko yàqal ma ne ko su dee sept personnes yooyu la xam nga rapporté wu ñu ma dara waaw waaye askan bi laay liggéeyal kon du ma yén ak man convention parce que parce que ñun li ñuy wax uh-huh. mooy ndawu Sénégal yi man Ablaye Ndiaye waaw du ma nekk du ñëw jóge ca daara ja dem jàng tuuti sama débrouillé ba mën a bind ci français mën a lire mokkaloon naa ca daara ja boole ñaar yooyu dem jàngi métier ba mokkal ko ingénieur bi nga xam ne dafa dem université def fa quatre ans génnee plan architecture am euh, euh, plan ingénieur plan architecte am def fa 4 man ñoom ñaar ñëpp ñu boole ko soumettre ma ko ma recruter sama personnel yëpp liggéey bâtiment bi te ñoom ñaar ñëpp ko jox bâtiment bi di ko liggéey